salaamaaleykum ah waali naa leen sekk naka yitte yi naka njaboot baa kenn woppul na xale yi naka jaaga mu ndaw baa jooy yi wàññiku na rek ana suñu mama jaaga ah waali di ñu ngi leen di mastawaat encore une fois di leen jaale moom mi di ñaan suñu boroom yërëm ko xaaral ko aljanna yàlla may leen xolu muñ te sara yàgg seen loxo

Est-ce que vous vous êtes rappelé de tout ce qui s'est passé au Sénégal récemment Maintenant oui, perd en grande partie. Ah, donc, vous vous êtes rappelé que nous avons 70 familles endeuillées dans ce pays il y a quelques temps seulement, parce qu'il y avait 70 morts, plus de 70 morts, qui les de manifestation. Maintenant oui. Est-ce que ben yoon famille yooyu nekk ko soixante-dix famille ante yi tax annulé woon concert bam ba mu doon tëgg fële ca Dôme de Paris wala musiciens yi nek Sénégal ñu arrêté sen concert yi ñu doon teug ma ah non mu ma c'est la même chose pourtant il y a sos plus de un nombre euh, exorbitant de famille endeuillée taxul ñom ñu arrêté li ñu doon def est-ce que ñom tamit bu ñek ci deuil dafa wara tax ñi ne xam dañuy def sen liguey

li tax ma def vidéo bi mooy kan bi ma gisee image yooyu noonu site boobu ma doon xas en euh, wan ma sama yaram dafa daw parce que dama gis mbooleem Sénégal xeet yëpp corps de métier yëpp dañoo bàyyi li ñu doon def waa li ñëw bokk ak yow gi jooyandoo ak yow ànd di la defal ma gis ci biir vidéo yi nga xam ne def nañ ko ci moom yi ma jël sama temps lire commentaire yi y avait un nombre incalculable de personnes yoo xam ne jël nañ seen temps écrire un commentaire en disant Wal sec, yàlla na ko suñu boroom mooy xol muñ mu wane na kon Sénégal ñun 17 millions de Sénégal yépp ànd nañ ak yow tiis bi nakar gi bàyyi suñu lépp toog di ñaanal moom yi sa mag aussi toog di la defal di la ñaan suñu borom di may xol muñ mu wane na bëggal gi ñu bëggeel am bëgg jofeel ci yow gi am ci yow dëgg la donc ba tax na ma lay ñaax pour que situation bu mu mën a nekkati Sénégal bu njëkkee situation naqar la maa ngi lay ñaan nga changer ci taxawaay man dama lay ñaan ko en tant que fans ji la ñaax encore

donte yaa ngi ci naqar sax waruma mais dinaa la ko wax rek nga xam ne carrément sénégalais yi bokk nañoo yow li naqar gi donc ñi ngi xaar ci bu sénégalais yi amatee naqar ak ku képp kuy musicien képp kuy personne ci Sénégal bokk ak sénégalais yi naqar gi beneen taxawaay boobu bokkut ak bii ñi ci taxawee bii passé donc image yow boo gisee yaram dina daw di nga xam ne senegal ñëpp bàyyi na ni noonu defu si la voilà loolu laa ne woon naa toog ñaax la ko aussi site internet yi ñu war xel bu baax a baax naqar yeeg tiis yi asalaamaaleykum